te ñu jàppale kon lii lu muy metti metti daanaka woyof na ci suñu kaw metti ne woon na trop nag waaye nag comme boo mettee boo amee metti ñëpp taxawul la rek metti bi day daal di woyof ci sa kaw moo waral tey lii ñu defit rafetlu nañ ko trop ndax nit amul ku ci séntu woon kon boo amee euh, natt bu tol noonu Senelec déplacé ay nit ñëw fii woo ñu dajale ñu waxtaan ak ñun am sax lu ñu teg suñu loxo jàppale jàpp ci jàpp ci coono yi loolu lépp rafetlu nañ ko trop ndax bu ñu ko defuloon tamit duñ ci dara comme def nañ ko nag sant nañ leen ci bu baax sant nañ ministre bi sant directeur bi délégation bi fi ñëw sant nañ leen ndax nit moom ndax ndogal la rek du yéen yéen ko def defu leen ko ndogal bu dikkee dikk na yàlla bi suturaal nag mi ko tax mu am guddi moo ñu suturaal ndax bu amoon bëccëg dana gën a ñaw comme am na bëccëg guddi nag daanaka yàlla dogal na presque dégguma ci ko ci ñàkk bakkanam alhamdulilah sant nañ ci yàlla bu baax ndogal nag bu dikkee say autorités ñëw ñëpp jàpp ci ñëpp taxaw la mu ne solo am mu ne solo yoosu loolu loolu nag sant nañ leen ci bu baax sant sant waa population koñ ba xale yu góor ñëpp ñëpp ci jàpp moo tax amul problème méttiwul toog ndax loolu ndax bu ñu seetaan amoon rek mu métti waaye Senelec jàpp na ci ministre bi ñëpp jàpp nañ ci ba tey lii amaat tamit sant nañ bu baax kontaan nañ ci vraiment amatuñ leen lu ñu wax ndax xam nañu nattu la ndogal la dogal bu ñëwee nag nangu rek lañ ciy def waaw loolu nag moo tax ma ne woon tey ma jël ci kàddu wax ci turu presque population yi ci laa doon noonu merci. Euh, tey boo amoon benn dénkaan bi ngeen di def parce que am na ñuy wax ne euh, courant moom euh, nekk na ak courant surtout ay haute tension wala basse tension moom moyenne tension. xam nga plus souvent dañuy wax askan bi ñoo fekk courant bi. Hmm. ñeneen ñi ne Sénégal war na am jumtukaay pour aussi aar installation ndax tey pare ngeen pour waxtaan ak askan bi dëkk foofu ak Sénégal pour ñu seetlu ñeneen pexe. waaw loolu tamit dëgg la xam nga ñun population population rek lañ koy gouverner. di ko jiite sunu kàddu dañu am nit ñu jël dénk leen sunuy kàddu fépp fu nu dëkk te waruñu faa dëkk suñuy njiit ñoo ñu war a taxaw nañu jóge leen fi forcé ñu bañ jóge fa ndax kenn du kenn du kenn kenn du yar sa bopp ñoom ñi xam danger courant xam autorité ñoom ñëpp bu taxawee ni ñu fii kenn waru fee dëkk war nañu war forcé suñu loxo ñu jóge fa ou bien ñoom ñu jël fi seen matériel loolu moom kenn autorité yi moo ñoom ñoo fi nekk pour loolu ndax ñun amuñu naan fii la ñu war a dëkk fii ndox bu ñu autorisation de construire bu ñu la xasee délivré pour ñun baax na kon loolu nag autorités yi yor loolu ñoo war a ñoo war a liggéey ci côté boobu xool ni bala ñuy def autorisation de construire euh, directeur wax na ko léegi ñu xool baax fi ñu lay fi ñu lay dëkkaloo ndax ñun it ay ay wut rek boo wutee kër bu am ko da ngay dem rek dëkk bu fekkente ne da nga defal nga autorisation de construire ñu jox la ko pour yow fi nga dëkk baax na bu amee ay ay ay yu mel nii yu am nag kay joxe autorisation de construire ñooñee ñoo am problème pas ñu pas pas population yi. ndax courant na. waaw bi dellu si na vraiment amul problème toute la journée bi bi ñu lakk ci suba sa rek courant ñëw na. xanaa bu ñuy def travaux di ko couper di def travaux mais courant bi ñëw na waaw. mën man sama kër mat matériel bu fa nekk moom lépp a lakk parce que courant bi c'est tel courant bi ndax lakk-lakk yi presque sama kaw kër la loon xewee étincelle yu mag yooyu dara desul foofu euh, euh, matériel bi am ci biir moom lépp lakk na mal heureusement pour man amul kenn gaañu fa ndax man électronicien laa xam naa ci affaire yi dara. géré woon naa ko ci biir kër gi ba xale yi mën naa leen ba yàlla dogal na amul benn problème ci biir kër mais matériel électronique bu fa nekk ak yëpp lakk na. ndax pare nga pour jaar yoon bi nga xam ne Senelec aussi ñu lay xelal pour que ñu mën la rembourser la. waaw xam nga ñoom ñooy ni njir rek lu ñuy wax rek bu ñu ñëwee ci ñoom lu ñu soxla rek ñoom la ñuy ñëw bu ñëwee def leen nii noonu la ñuy def lu ñuy wax rek ñu def loolu waaw bu ñu noonu sax bàyyi leen ko ci bàyyi ko mais bu ñu nee def leen ni ñu def noonu dëkk ndoo yi jàpp nañ ci maa ngi leen di gërëm di gërëm dëkkandoo gën a jàpp ci xadis bi nabi sallallahu alayhi wa sallam waxoon aljaaru qabla daar na nga am dëkkandoo bala ngaa am kër euh, man niñ ma ko nettalee soxna si nee na man maa ko yee maa mbëkk veranda bi mu ubbeeku sans clé mais dama fàtte loolu lépp li ma gis rek moo yeewee yeewa hôpital di gis blouse blanche gis nit ñi dem ak ñëw dama yaakaar sax dama siburu kon loolu yàlla moo ci jàpp haute tension ku mu jàpp ba bàyyi la kon dañuy sant yàlla di gërëm dëkkandoo yi di gërëm dëkkandoo yi di naax nit ñi aussi ñu gën a man bi ma ñëwee koñ bi damaa dem nuyu ñëpp daaw laa fa dëkk ça fait une année le 2 août laa fa dëkk daaw peut-être une année vingt 22 jour laa fa dem 20 jours. yàlla def na xamante na ak dëkkandoo yi ñu jàpp ci maa ngi leen di sant di leen gërëm ginnaaw bi ma sante suñu boroom eh, geste bi Senelec def nag Serigne Fallou wax na ko jot jaaraat waaw yàlla moo ci jàpp ñu ngi koy sant di ko gërëm vraiment li yi wax nu àlla la une bi ñu defoon aussi c'est vrai maa leen c'est ma déclaration vraiment man moom. yàlla bu ci jàppaloon leneen la ñuy waxati ñoo ngi sant yàlla bu wér maa ngi wax di kii je défie euh, xaw ma euh, kii xaw koy wax les autres tensions yàlla dong mooy rey ku dundal nga dund ku mu rey nga dee waaye aussi nit dana toujours da ngay war a moytu nag xudu xidrakum loolu yàlla wax ci alquran na ngeen di na ngeen di moytu yàlla jàppale ñun ñëpp ñu moytu Euh, ñu ngi euh, gërëm aussi Senelec ci geste bi ñu def yow euh, yéen aussi tasxat xibaar yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant vraiment.